asalaamaaleykum mbokki xaritu internet yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen dalal ci émission bi nga xamante ne dañ koy faral di def di ko faral di di def ak ku nekk tey nag ñu ngi ci am mbégte ak kontante dalal ki nga xamante ne nii mooy Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye honorable député de l'Assemblée nationale euh, monsieur Abdoulaye njaay maa ngi lay sant di la gërëm euh, ci ni ñu dalale ni nga accepté nangu toog waxtaan ak ñun di la ci sant di la gërëm di bàyyi nga nuyu suñu mbokk internet yi ñu yaatal waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay ziar di nuyu ñi nga àndal ci liggéey bi di profité également de l'occasion pour nuyu seen téléspectateurs yi di leen ñaanal ci weer bu tedd bi weer bu sell bi yàlla nangu ñaani yàlla faj soxla yëpp ah di ñaan également interview bi nga xam ne da ngeen ma ko jagleel que njëriñ feeñ ci waaw loolu weesoon nag je suis à votre disposition pour répondre à, à vos questions. yow responsable politique nga fii ci Grand nekk APR et puis ñu ràññee la ci politique ci activité politique euh, APR bu Grand Yoff lool lool lool tey euh, suñ la doon wax statistiquement tey maanaam sa jaar-jaar ci politique fan nga jóge et puis fan nga fan nga fan fan nga dooree ci sa politique ci APR la wala ci feneen parce que ñu ngi la daan faral di gis ci ay mouvement ci association yu deme noonu tey ñu ràññee la ci APR dëggantaan lan ngay indi leeral ci loolu. waaw li ma bëggoon leeral d'abord que xam nga bi ñuy doon ndaw ñu nekk cité millionnaire ay xale dañu lëkkaloo woon ak suñu chef de quartier ñu tuddee ko ma dem Gueye yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. ci mbaaxam euh, benn bés ma génn ah dit bi may ñibsee ma dégg ay tàccu këram mu ay tàkkusaan la woon je crois ma dugg si dégg ñuy liir bureau ma dégg secrétaire général Abdoulaye Ndiaye ci man ñëw toogal ma ne ko kan mooy Abdoulaye Ndiaye ñu ne ma yow la ma ne ko ah man bu leen damay politique man du ma boobu jamono parti socialiste la woon alors ci guddi góor gi woo ma dama ah man de def naa loo xam ne tàgguwuma la ma ne ko lan la mu ne ko mu ne ma dañ la dama la choisir pour nga jiite xale yi ci wàllu politique bi fii ma ne ko ah góor gi man duma politique de mais nag yow moom sama waajur nga mënuma ba mënuma la bañal dara waaw waaw dinañ jéem jàppale la bon bi ma demee kër ga ma waxtaan teg sama mag mu ne ma ah c'est un choix ma ne ko ah je vais essayer alors biñ demee ci biir nag li taxoon sax ma sawar ci c'est que dafa amoon lu ñoo xam dañ jógoon pour andi ay problème góor gi maanaam ci wàllu responsabilité ci wàllu chef de quartier ah, ma sumb ci ànd ak samay xarit ah ñu dem ba à un moment donné quartier bi am ay division ay tendance ay ñun fekk na ñun amante nañ ay ñun au niveau des jeunes ñun ñëpp pratiquement dañ doon fréquenter léegi man su ma jógee ci sama kër dem seeti sama yenn gars yi xam ne seen ay waajur dañ nekk ci beneen tendance bi sama waa tendance di kaas ñoom aussi bu ñëwee suñu kër ñuy waxtaan di naan ataaya ñoom i seen waaye kaay di kaas xuloo yi mel ni tulak mbale ci biir koñ bi ñun ñu jaxle on sait plus amatuñu repère trois mois lañ def ci affaire bi trois mois ñu ne lii daal nañ dem créer ASC ci lañ dem dox dox dox dox di créer di jafe di ñafe ba yàlla suturaal ñu mettre en place l'ASC du quartier bi ñu ko bàyyi nag ci la ñu ñëpp ñu démissionné ci affaire politique bi donc trois mois mun nañ ne def nañ ko parti socialiste loolu ay boobu gën nañ nekk ndaw mais euh, loolu loolu dem léegi nag après on a observé une pause ne léegi affaire yi c'est fini léegi en 98 ma toog suma buntu kër euh, sama benn rakk bu dëkk ci koñ bi ñoo ne ma temps yi dañuy jàppale jibo Djiboka ma ah, lu tax mu ne mu dafa am benn waaye bu dëkk ci koñ bi bu ñëw Youssou Ndour candidat la à la députation ma ne ko ah loolu Youssou Ndour te xaw ma après ñu ne ma bon ma leen de toute façon su nga dematee seen région bu ma pëlee man ma ma xool quoi léegi ñu invité ma ay ay seen benn rencontre je suis venu toog j'ai pas pris la parole ba question diverse ma jël parole wax le gars en question moo jóg déplacé wu ñëw ci man ne ma juge xaw ma la mais je voudrais faire de toi un conseiller ma ne ko ah mun a ma ko ah grand man du ma politique de grand xam nga mais mu ne ma non on va essayer rek léegi mu invité ma ay réunion këram bon ma ne ma joué le jeu ma joué ma joué le rôle de conseiller parce que aussi euh, honneur la woon pour ñun waa quartier bi ñu am un candidat à la députation donc euh, c'était un honneur pour nous. bon ñu nekk ak moom nekk ak moom ba campagne ba jeexee ba campagne ba jeexee ci lañ pare ci affaire politique on a mis une croix ne léegi ci laa ne c'est fini maintenant waaw par la suite entre temps nag ñu doon politique grand chef ñu bëri seet si woon nañ ma Khalifa Sall ma yàgg na di ma seet si Pape Mamour Gueye yàgg na ñëw di ma seet si et les autres aussi ku ci nekk da nga doon ñëw pour ñu participer parce que euh, jamono yooyu aussi j'étais ah, au niveau des jeunes j'étais incontournable nga euh, Euh, mais li ñuy wax ne yàlla lu mu tudd kenn mënu ci dara en 2008 ay jeunes ci koñ bi ñoo seet si ma na ma grand koñ bi amul loo deful fii ci koñ bi étant jeune ma ne leen waaw mais grand ñun politique lu ñëw romb ñu lu ñëw romb ñu lu ñëw romb grand ci cité millionnaire ma leen si booy duma politique parce que du ma dem PS du ma dem PDS te du ma politique gars yi dama noonu après booy dem boole ma ak mairie ma am sama yaay joo boo xam ne dama course trop biñ ma booleek moom semaine boobu lañ ma la ma sama benn jeune frère bu ñu wax mu dagaa baro woo ma ne ma yënga ne Macky Sall def tey benn benn benn benn déclaration ma ne ko ah bon tey ma ne waaw ah, ma ne ko ah fan la mu ne ma fan résidence 2008 waaw c'était le 9 novembre 2008 ci la ci la ci la déclaration boobu am bi coow li li bëri yëpp pratiquement grand dem daj yaakaar naa ne maa fa nekkoon ànd ak parce que bi may dem ma maag Ibou Faye Ibou Faye laa ne kaay gunge ma ak Assa Ousmane fekk nañ fi aussi naa si dem euh, la raison aussi elle aussi simple parce que ñun aussi am na ay liens ñu am peut-être yu ñu mënoon jàppe Fatick yu ñu mënoon jàppe Macky Sall pour être là-bas alors bi bi Macky defee sa déclaration jour boobu la décidé quitter PDS ma retenir benn wax mooy bi mu ne six mois ngi nii ñu may topp di ma toroxal mais kenn mësuma dégg xam naa ni ñi mënatuma nekk ak ñoom damay bàyyi toog jàpp yàlla xaar xaar yàlla donc wax jooju métti kii ma frappé ma quoi je suis rentré chez moi j'ai appelé ma grande sœur qui est une responsable politique à Fatick waxtaan ak moom mun ne ma ah Macky day su ngeen ko mën a jàppale aussi vous génération ma sama sëriñ également wax ko sëñ bi ne suba à pareille heure nag ma woo alors bi bi bi le lendemain j'ai appelé le Mara à pareille mu ne ma Ablaye euh, jox naa leen ndigal sax nga dem jàppale ko. sama sëriñ sëñ Murtada Mbàkke bu sëñ Modou bu sojee ndax euh, yéene bi yéene bi ñëpp amoon yaru beek et puis tout ça alors bi loolu amee ci laa commencé nag dugg ci politique bi commencé nag woo gars koñ bi ma xam biir Grand Yoff ñi ma xam donc avec une nouvelle approche quand même parce que ñun on se considère comme des développeur parce que n'oubliez pas que aussi en dehors de mes obligations professionnelles dama amoon benn collaboration bu riche ak Endagraph waaw loolu permettre na ma ma am capital expérience bu bu yéeme ci wàllu organisation méthode mais wàll également ci programme de développement alors si sukkandiku ci loolu nag ci la ñu ci lañ commencé nag ñit ñi ñu dem léegi am siège les gens commencent dem siège bi mais finalement fii à Grand Yoff on s'est organisé bon l'organisation nag du parti à Grand Yoff j'en ai le pres j'en suis le précurseur waaw loolu moom man eh, audience la ma président accordé loon ma ne ko est-ce que je peux être accompagné mu ne buñ bëri ma ànd ak quelques éléments ku mel ni Cheikh Ndiaye Ibou Faye euh, Ablaye Biaye nekkatul ak ñun léegi mu ngi mu ngi mu ngi eh, eh, parti pur pur la nekk léegi y avait Maymouna Sow y avait Nancy Deme y avait Feu Ablaye Ndiaye y avait euh, encore Koulim Diouma waaw y avait y avait y avait Anta Dieye y avait y également euh, Ousmane Diouf hmm, je crois que euh, yooyu laa am na ñeneen mais bëriñu woon quoi ak kii laxat xuma y également laxat xuma bon bi ñu demee ñu waxtaan ak président ma expliquer ku ñun ni ñu bëgg a wax politique agraire bi ma ko waxee pare président nañu délégation yi ma mos dajal tasel fii ba léegi grand rek ñoo ma ñoo ma wax lu mu mën a dégg ci laa ko nag président euh, nous sommes un parti naissant euh, te Grand Yoff le parti socialiste et le PDS dañu. ancré ci population yi si on travaille en ordre dispersé dina métti pour ñu si ñu génn dañ lay ñaan nga may ñu ñu créer en cadre de concertation et d'action de ko coordination provisoire il était avec Mahmoud Saleh je me rappelle le ministre Mahmoud sale mu toog toog ba mu yàgg ne ma c'est pertinent nangul nañ la ko lii moo andi coordination de Grand Yoff c'était en 2009 sama école lañ def assemblée général bi également pendant cinq ans mon école a servi de lieu de siège pour le parti waaw. Ah. Euh, monsieur l'honorable suñu la déggee yow trois mois nga def ab nga def euh, PS donc trois mois ci nga jógee depuis nga commencé woon débuté ci mouvement association yi donc ASC ak ci ASC ak yooyu donc yàgg ci en tant que président ASC jógee fa def trois mois PS ñëw APR mais tey buñ lay wax statiquement tey politique bu ñu nee Ablaye Ablaye Ndiaye rek. xel yi day dem ci ci APR automatiquement Grand Yoff dana de APR kooku APRiste la kooku Macky Sall ak yooyu mais tey bi nga nekkee APR ba léegi sanc ko fi bokk ñi ci ñeen njëkk a taxawal xeex xeex tey yàlla may na leen ndam ci deuxième tour ci ci ci élection yi ñu dem nal donc parcours boobu yëpp tey la la la politique defal tey bu ñu ko doon wax lan nga ci gën a loo xam ne kontaan nga ci ba kontaan ci tey bu ñu la laajee lan moo la gën a neex ci APR ci sa parcours politique moom ngay wax. dafa am benn produit boo xam ne sama loxo la la judo muy organisation parti mu dund ba yegg si fii ni dugg si donc loolu ça fait plaisir ci biir partie bi également euh, yàlla boole na maag ci ay nit ñoo xam ne ñu baax lañ xam naa leen mais aussi j'ai eu trop de déception trop trop trop trop de déception waaw je peux dire que sans risque de me tromper, je suis l'homme politique qui plus de coups ici à Grand Yoff et tout ce qui le faisait yàlla xam na ne dañ ko doon def rek parce que seen nafsu ci seen nafsu lañ topp mais xam nañ ne du ma du ma kuy xuloo waxatuma kuy yéene nit lu bon wala kuy galgal nit mais li ñuy wax ne l'histoire m'a donné raison aujourd'hui euh, mais sant yàlla rek mais li may li may wax rek comme comme comme loo xam ne ay éléments yu ma yu yoo xam dafa ma c'est satisfaisant euh, bokk na vraiment ñenn ñi seen collaboration yu mu am ak ñoom tiré ci ay expérience tiré ci vraiment lu am solo parce que man aussi damay ni man damay taalibe malgré les coups bas damay jéem a tout tout le temps di positiver Euh, di positiver parce que loolu mooy tax aussi nga nga nga nga xam suñu borom euh, parce que nit dina def dara fekk état état d'esprit bi mu tolloon moom moo ko taxal moo koy def mais en réalité euh, en dehors de ça euh, mun ngeen coopérer et c'est ainsi la ainsi va donc jàppaluma ci kenn dara boobu oh c'est passé passé nañ loolu weesu na suñu gannaaw la nekk et ñun ñu on existe ñun ñëpp on existe jusqu'à présent et donc ça c'est important et donc euh, suma passage par séchage aussi loolu taxul ma xam fa dara parce que trois mois ñu nekkoon noonu c'est dans le quartier bon à part une seule une, une seule euh, rencontre bu ñu defoon avec les grands Ibou Diom mais su weesoo loolu loolu ASC bi moo gënoon dominer après parce que ñun bi ñu créé suñu ASC bi on avait tout laissé tomber quoi la politique et tout ça et loolu aussi tax na ñun bi ñu dugg APR aussi on s'est dit que on a des des amis un peu partout que ça soit dans les partis d'opposition que ce soit dans la société civile te lenn lenn lenn du tax relation boobu ñu bàyyi donc moo tax dañuy jéem a góorgóorlu pour am ay relation yu baax ak tout le monde. Euh, su su ñu def euh, bilan ci campagne bi nga xamante ni dëmmal lañ ko tey ci élection présidentielle yi tey ngeen jox Macky Sall 41,23 pour cent tey falu na tey bilan bi est-ce yomboon na parce que ñu ngi la doon gis yaa ngi doon wër ci centre de vote yi ak yooyu noonu di saytu say euh, say say say say say say say donc say nattaango yi di saytu say nattaango ci xool liggéey bi fu mu yem ak yooyu lan la woon euh, wër bi tiitaange la wala lan la woon. non non xam nga dañu ne l'expérience boobu mieux que le conseil xam nga booy liggéey am une première expérience une seconde expérience une troisième war nga agir. war nga xam fan la affaire yi di dox ak fan la affaire yi doxul bon mais globalement disons que le bilan est positif parce que Grand Yoff kenn xaaru ko woon ci ci 2019 kenn xaaru ko woon moi je suis persuadé président sax affaire bi surprise la ci moom mais li ma yàgg di wax rek gis nga buñ doon ànd 2009 ñëpp dañ d'accord ne Ablaye a raison j'ai toujours di que nañ doon benn loolu laa mos di wax et quand on est uni on est on devient fort et quand on est quand et quand on est uni kenn mënuñu gagné Grand Yoff boo xoolee en 2012 on n'avait aucun moyen mais yéene bi moo amoon on est sorti vainqueur premier du euh, premier euh, ci élection présidentielle premier élection législative mais dafa am premier tour ak deuxième tour yëpp ah mais loolu loolu dynamique bi ñu nekkoon moo ñu ko mayoon mais bi ñu commencé en 2014 kii jaar gauche kii jaar droite kii jaar centre on est on est on était parce que loolu sax ma warul ci législative yi jëloon ak. Mimi ak Mimi ngeen perte ko. li ko local la woon xool yow nan nga mun a calculer nan nga mun a comprendre ñu jox ñu trois postes de député et on perd les législatives a problème donc problème bi nag bokk da nga koy jéem a analyser avec philosophie. donc euh, c'est tout un ensemble jaruñu ci dellu siwaat mais li am solo bi am solo c'est que à chaque fois qu'on est qu'on qu'on se sépare qu'on part séparé on perd mais à chaque fois qu'on est ensemble on maximise nos chances et on réussit léegi nag euh, chaque élection dafa am ay réalité foofu moo tax ma ne et je profite de l'occasion pour pour dire au président de la République que ñu gëstu Grand Yoff nañu gëstu Grand Yoff Grand Yoff mënul am soixante dix neuf mille électeurs lu toll nii plus de près de quatre cent mille habitants yeneen communes yi ngay dénombré ay hauts cadres ay hauts responsables yu nekk ci exécutif bi un peu partout alors qu'en Grand Yoff on n'a rien du tout ça je dis que loolu président xam naa ne bàyyi na ko xel moo tax dañ koy ñaan parce que li tax sax ñu koy gën a ñaan mooy suñu diggante ak ñu nawle suñu nawle yi xam ñu nekk opposition bi population bi seen bopp am na bët bu ñuy xoole yéen a ngi décarcassé wu yéen a ngi góorgóorlu yéen a ngi demee en retour qu'est-ce que vous avez donc pour ñu sagal ñu ñu xool au moins ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay faveur yoo xam ne war nañu moom na ko def aussi bien au niveau des adultes qu'au niveau des jeunes xam nga da ngay xool nos jeunes là kan moom la ci mun a wax ne ce post la je l'ai eu à travers ma sama présence dans le partie on les compte au bout des du bout des doigts ah même même ñi nga xam ne sax c'est artiste temporaire mu mel ni ay coude mu mel ni yeneen sax mais souvent euh, Grand yof mooy absence mooy absence bi mooy le grand absent et tout ça je crois que ce sont des choses qu'on doit corriger mais tam aussi ñu mën a corriger ko également pour que ñu nous aussi au niveau entre responsables qu'on soit assez sincère entre nous euh, ñu jàppalante ñi am possibilité di gis président di wax ak président ñi am possibilité di wax waxtaan ak yeneen autorité di waxtaan ak autorités di leen alerter ñun on n'exige pas mais quand même on attire l'attention kilifa bi pour wax ne ah li ñeneen am ñun war nañ mun am loolu parce que mérité dañ ko. Euh, ndaw Grand Yoff ñu ngi jooy di kaas surtout rawatina sax ñi nga xam ne ci APR la ñu nekk donc wax nga fi waxu nomination léegi mu mel ni nominé na am ngeen Grand Yoff am na ñaari nomination ku ci mel ni Cheikh euh, Bakhoum moom euh, directeur ADIE agence informatique de l'État ak ki nga xamante ne mooy madame Mimi Touré moom moo nekk présidente présidente conseil. économique et sociale et environnementale yow lan ngay wax ci loolu ci nomination Mimi Touré boobu. non xam nga euh, Mimi Touré d' abord aujourd'hui c' est national disons hmm? parce que moom fii la doon yëngatu à un moment mu dem Kaolack bien vrai que euh, Grand Yoff aussi euh, mu toogoon moo ñu gënal donc mais le problème qui se pose c' est que Mimi je crois ñi fekkee sama compagnonnage ak moom xam nañ le que j'ai joué. ba mu toog fii donc euh, mais dama ne yàlla ak pexem jaam yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam man bi ma jotee nouvelle bi daf mu fekkoon quelque part aussitôt dama ko envoyé texte di félicité ko mais ci saa si la ma tontu et ça loolu ma ma rafetlu ko trop vraiment ma rafetlu ko trop parce que aussi am nañ ay jaar-jaar maa moom on a passé de très bon moment yoo xam ne ay moments yu instructif lañ et donc je crois que de part et d'autre aussi ku ci nekk loolu am na lu mu la jëriñ donc je crois que toute la population de Grand Yoff parce que n'oubliez pas que Mimi Touré am na fi kër Grand Yoff kenn gënu ko doon Grand Yoffoise kenn gënu ko doon Grand Yoffoise am na fi kër Scat Urbam donc euh, loolu il peut se réclamer Grand Foise comme ni mu mun a réclamer aussi Kalokaz wala wala euh, de Gueule xam nga waaw ah, donc loolu yëpp euh, ce des choses yoo xam ne adduna moo bindoo noonu donc ñu ngi koy ñaanal ci nouvelle fonction mi yàlla defal ko ndam bu kawee njortam donc euh, te moom aussi également s'il a des possibilités vraiment de penser à aux jeunes de Grand Yoff aux populations de Grand Yoff également moom loolu sax kenn ko ko jàngal je crois que te en tenir na ci compte en tout cas rafetlu nañ nomination bi et c'est l'idée également de féliciter le président de la République ci vraiment acte boobu mu posé mu nekk un acte très fort waaw. Euh, bi benn objectif rek la woon mooy élire Macky Sall de ci ci deuxième may jox Macky Sall deuxième mandat tey Macky doon na deuxième mandat ñu wax ci quinquennat yi cinq moo ko fi desee donc yéen yi nga xam ne ay responsable politique APR bu Grand Yoff ngeen nekkoon fii di combattre di xeex wàcc sur le terrain donc lan ngeen war a mën a xaarandi ci cinq yi lan ngeen jàpp ne ci cinq ans yi daal war ngeen ci mën a gis seen bopp. yokku yokku xam nga ñun on avait un président dafa amoon un défi qu'il se devait de relever muy am deuxième mandat yàlla suturaal na ko yàlla jox na ko ko euh, ñëpp mu yële mayu tout le Sénégal mu yële mayu Grand Yoff mu nekkoon problème ci biir problème deb daar un ñun suñu ñàkk juboo en tant que responsable taxoon na autorités yi ñu ci bëri amuñu yaakaar mais ñaar mais également ñi ñu janool hmm, Khalifa Sall bien vrai qu'il est en prison ak aussi les autres formations yi nga xam ne dañu xawoon regroupé wu pour fair face à mais xam nga li ñuy wax ne nit ki réeroo amul ñàkk waxtaan am gis nga ñun bi ñu toogee suñu biir waxtaan les gens se sont rendus compte en tout cas certains se sont rendus compte que globalement y avait pas de problème yu tax mënuñ ànd parce que dañ doon kaf di ree di ko ay li xewoon 2009 2010 2011 ay ay ay ay ay ay anecdote yoo xam ne da ngay ree bay raam après finalement je me rappelle très bien may mun a soo toole benn journée xam nga ni lii dara dàq ko xam nga yooyu ce sont des choses yi nga xam ne euh, facilité na suñu ànd te bu ngeen xoolee présidentielle bi bu ñu àndee mais euh, ku ñu gis rek dugg nañ benn kër man Cheikh Baoma Cheikh Ndiaye waaye def ñu xool rek nañu ah yéen de est-ce que ngeen sax jaar jarul si ngeen wax ñun lii rek lañ doon ñaan dem leen di ngeen am ndam am nga donc parce que démb noonu la woon. donc su yàlla defee li la foofu et puis également aussi même que beneen beneen camp bi bi Adama jiite woon malgré ànduñu woon ñu ñëpp mais moo déggoo benn yoon fu ñu xiir ñiroom wala ŋaayoo déggoo benn yoon fu ñu waxante du ñaaw ñu ngi jàppalante sa suñu biir di téléphonante suñu biir di reyante suñu biir loolu moo andi ndam yàlla moo ne fu ngeen doon benn yéen ñëpp yenente jàmm rek moo ci xéwal moo ci xéwal bi donc maintenant Sénégal dans tous les secteurs dañ ko comprendre noonu boo fàttaliku lu luñ fu ñu jaloo mu dem sotti parce que xol yee doonoon benn mais bañ ci dugalee la woon ca bokkul rek yàlla téye boppam. biñ ci dugalee lu ci bokkul yàlla téye boppam mais honorable tey euh, seen victoire bi nga xamante ne am ngeen ko à Grand Yoff est-ce que du absence su Khalifa Sall. xam nga man. absence bi amul lu ci joué. absence su Khalifa Sall amul lu ci euh, joué. Euh, très jeune boo waree Dakar. di nga jafeen gis koo xam ne vingt quatre ans la am nekk président ASC gis nga bi ma la affaire yi trois mois yooyu PS après ci lañ créé ASC ñun la moins d'âge di comité directeur vingt deux ans la vingt trois ans jàpp vingt donc on était très mais nag ay jeunes discipliné woon la ñoon dañ doon dem seeti suñu mag yi di leen laaj di ñu ñuy wax donc loolu expérience la woon ñu dugg fu ne grand mais suma collaboration ak ENDA moo ma may ci programme yu bëri ENDA doon def ma bokkoon ca amoon ca wàll may parcourir Grand Yoff di dugg ci quartier Grand Yoff yi fii yu bëri yaa yaa ngi koy dégg Grand Yoff sama loxo dugg na ci mais dama nekk ni koo xam ne ñaareel sama euh, wax ay wax ay maa def lii lii loolu c'est pas problème mais je connais bien Grand Yoff et ñi yàgga yëngatu Grand Yoff nekk dans la société civile nekk dans le mouvement associatif loolu yëpp mouvement sportif yooyu yëpp xam nañ kan mooy Ablaye Ndiaye man peut-être des fois ñi ne sama parti ñoo ma xamul donc Khalifa Sall ñun buñ meloon ni ñu war a mel même su nekkee fii dañ koy gagné la preuve 2012 il était là avec nous par PDS moo nekkoon au pouvoir Khalifa moo jiite woon Khalifa ak Tanor Benno Tanor mais on les a ñoom ñëpp cent mois lu tax parce que xalifa suñu mag la mais fu mu teg tànkam grand ñun mun nañ fa teg suñu tànk ñu mu waxal ñun mun nañ wax ak ñoom mais malheureusement à un moment donné j'étais la cible du de beaucoup de gens du partie ku jógoon Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye te xam nañ loolu benn objectif lañ amoon rek mooy m'écarter bon donc euh, mais ce qui est certain c'est que après am nañ ñoo xam ne Euh, su fi xalifa nekkee keneen fi ne sax mun nañ leen gagné parce que les gens na comprennent pas Grand Yoff Grand mën nga yore ay milliards boo ko joxee gars yi faalewuñ milliards yi ba lañ ko joxee ñaanuñ la ko dañ koy lekk def liñ bëgg a def Grand Yoff xam ki ñu soxla ki ñu rus ak ki ñu naw dañ lay rus soit say waajur yàgg nañ fi def ay dara Grand Yoff dañ lay rus parce que yàgg nga fi def ay affaires depuis temps en dehors de la politique dañ lay naw parce que sa jaar-jaar moo tax ñu naw la oui c'est important tant que nag ñun comprendre wuñ ko noonu di jiital critère boobu on aura toujours des problèmes ici mais Khalifa avec sa présence mun nañ ko gagner facilement waaw mais tank aussi ñu ngi defee ni ñuy defee devant xalifa Khalifa daf ñuy gagner chaque jour waaw ok sa appréciation ci remaniement remaniment bi ci remaniment bu bees bi ci cinq cinq quinquennat bi lan lan mooy sa appréciation ci ci loolu. oui moi je crois que euh, soo jëlee ci organigramme de fonction bi maanaam ni architecture gouvernementale bi rafetu naa gis-gis président. surtout nu mu éclater le ministère des finance et de l'économie c'est important ñaareel bi les profils il y de très bons profils xam nga ministre coordinateur nga da ngay coordonner une activité boo amee de très bons directeurs de service qui jouent le jeu honnêtement yow nga am le sens de la négociation nga am le sens de la communication facilement tu réussis ta xam nga le ministre euh, Matar Cissé bi mu nekkee DG Sénélec dafa def quelque temps rek def ay commencé résultat ay journalistes posé ko la question quel est ton secret benn wax la leen wax dama delloo waa Sénélec li ñu moom da nga wax ji dama delloo waa Senelec maanaam dama delloo agent yi li ñu moom xam nga mais quand tu es un ministre tu t'enfermes chaque jour dans ton bureau bu la saar agent rombee sax nga dem mu foog ne yàlla moo romb mais kooku tu ne le pousses pas affaire faire du à, à, à, à faire bon travail le ministre war na jékki-jékki tey éducation nationale war na jékki-jékki tey sol daalam huit heures mu fekk ko école grève deux wala fekk ko école xaar yàlla ñëw nuyu si leen jàmm ak ñoom kaf ak ree demander la question comment expliquer tey mu Tamba yooyu d'abord dafay andi leen day dédramatiser la IRH et c'est important dans le cadre du travail ensuite dina mun a da ngay sas sénégalais boo ko sasee rek yaa ko moom te boo ko yëgee sas ko rek yaa ko moom et que donc foofu. Euh, euh, ñi nga xam ne président dafa placer sa confiance ci ñooñu ñooñu war a am une autre manière de pratiquer le management c'est le sens c'est avoir le sens de la négociation et la négociation nag dafa yaatu dafa yaatu trop donc je crois que loolu rafetu nañ ko trop e am na ci ñoo xam ne commencer nañ ko comprendre te nit ñuy defal neex na ma trop ku mel ni Abdou Karim Fofana j'apprécie vraiment sa son travail de proximité bi muy def dem yaa surtout yaatu bi ak concertation bi c'est important parce que ñun naa le monopole des savoirs. ok euh, ñaari mbir aussi tamit ma bëgg la ko laaj mooy wax nga ko sànq mooy Amadou Ba ministre de finances euh, le fait que ñu écarté ko ñenn ñi nee nañu politiquement da koy rey parce que mu ngi woon commencé di am doole donc Macky su fi jógee woon nit ñi yëpp xalaatoon ni que ni ki koy war a mën a remplacer mooy Amadou Ba parce que gis nañu taaram ak yaram ak liggéey bi nga xam ne doxal nañ ko ci wàllu finance beneen bi mooy aussi suppression PM bi mooy Boun Abdallah Dionne yow ñaari question yow lan nga koy lan nga ci sa gis-gis ci ñaari question léegi nañ njëkkee ci Amadou Ba Ba n'a pas été dafa changer de responsabilité mais yow un ministre des affaires étrangères dans une république mais loolu dafa am solo grand loolu dafa am solo yow yaay gérer la la la diplomatie de la république loolu loolu loolu amul lu ko gën a li am solo mooy loyauté et je crois que tant que mu ngi ci gouvernement bi am na am na am na comment dire la confiance du président et c'est qui est important léegi nag man nit bu may bu ma déggee ñuy wax lii lii lii tey il a un défi à relever par rapport à certains ce qu'ils disent moom nag gën a wane euh, xarañ ci liggéey bi bu boobaa il va faire taire les gens c'est ça le seul moyen par rapport à la suppression xam nga Sénégal wax naa ko ci benn émission télé Sénégal ñun wax daf ñu neex wax daf ñu neex ñun nous dans un régime semi-présidentiel disons même présidentiel c'est le chef de l'État qui décide le le premier ministre il est nommé par il est nommé par qui il est nommé par le président non ah le le premier ministre assure l'application de la vision de la mission boo bëggee mënoo nommer ministre c'est le sur sur proposition nga def ministre président moo na mais tout le monde sait que c'est le président qui nomme mais kooku bu la jëlee ne la poste bi dama koy dindi ñu andi kaay teg la sama wet boo xoolee euh, ay responsabilités yi gaa yi def dans ci gis naa ko ci réseaux sociaux yi mais da xam ni kii président jox na ko gëdd jox na ko respect jox na bëgg na ko mu gën a liggéeyal ko mais donc amul amul benn incident ci liggéey bi cest di dire que ñun li ñu war a wax le fond du problème le débat il est ailleurs xam nga débat bi fan la la valeur travail dans la pratique quotidienne de vie au Sénégal est-ce que le médecin ou bien l'infirmier qui a Nabi Choucair ci contrat de travail am ñu ne ko huit heures ngay xëy wàcc dix sept heures wala dix est ce que à huit heures il est toujours la bas est ce que temps de présence bi li war ci liggéey mu ngi koy def est ce que l' enseignant qui est dans sa classe ce que le temps de présence mu ngi koy jox ak ci bi est ce que l' ingénieur qui aussi ailleurs mu ngi koy def est ce que le comptable mu ngi koy def est ce que le ministre mu ngi koy def foofu mooy débat bi parce que man. da ngay xool tey dans un service nga dem fa gars yi 9h la ñuy xëy si entre 9h h jël kafe la lire journal tu regardes un petit dossier ubbi sax kii nekk ci réseaux sociaux yi mais ça bunoo développé dëkk alors que boo demee dans nos dans les autres pays à cinq heures du matin da ngay foog ne mooy suñu 10 heures fii tout le monde est debout et chacun va son euh, va va donc il faut foofu laa ne le monde ne pas trop fort mais il faut révolutionner les mentalités il faut faudrait que ñu arriver à changer les comportements et loolu nag li koy andi mooy xam nga y a la corruption passive parce que man su nekkee dama soxla un dossier mu gaaw ma ñoo neexal la maa lay korom loolu na dañ Sénégal bu la oto bu la policier jàppee nga ne ko non defal ma contravention damay dem fay yaa ngi koy pousser pour mu bàyyi corruption mais loolu ce son des comportements yoo xam ne c' est pas le rôle du président président mu ngi biroom mais ñun suñu biir ñun ñoo war a def créer une chaîne di la par rapport à la chaîne de responsabilité ñu seet ku ci nekk ci ñun lan nga war a def mais état bi également dafa war a appliquer des fois sanctions yi c' est vrai que des fois indulgence mun am à certains niveaux mais quand même am na yoo xam ne dañu war a appliquer dañu war a appliquer globalement, disons que euh, aussi bien le cas de Amadouba que la suppression du, premier, du poste de Premier ministre, je crois que ce sont des choses qui nous intéressent. Quoi. parce que nous si nous avons il n'existe pas. Si nous avons il n'existe pas. Donc, euh... ok, monsieur l'honorable, nous avons une élection locale, nous avons une statut, positionné pour nekk candidat. dégguñ la boobu léegi lan moo ci sa xalaat ci élection locale yi ñu dënmal da ngay nekk candidat wala kan ngay soutenir wala yaa ngi ci ginnaaw ci ginnaaw képp koo xamante ne ni yéen waa APR en tant que responsable jiital ngeen ko ngeen li allié ci moom. xam nga suma ma déggee sama gars yi dañ ne man je suis candidat je ay réer lañ affaire ay réer la may def xam nga ba fii ñu toll nii suffrage indirect la équipe ngay présenté boo gagné. seen biir nga seet kan moo mun a nekk maire waaw boo léegi yow noo mun a taxee ne man candidat la ak système parrainage. non loolu laa non dama nañ ñem rek ci ci ci ci ci kii bi rek disposition bi rek léegi dégg naa ci dialogue national bi il est question ñu travailler sur mu nekk suffrage direct cest di dire kii nekk tête de majoritaire su gañee rek il est il est il devient maire automatiquement xam nga foofu su amee. su nekkee dans cette cadre dans cette situation là ku ne mun nga taxaw ne je peux être je candidat mais ci cadre bi ñu nekk nii dire que tu es candidat yaa ngi déjà faussé l'esprit de groupe bu war a guider euh, la confection des listes et je crois que fu mu ne nii mais yëpp xam nga ay tolluwaay la rek quoi ay tolluwaay la rek mais euh, pour la mairie de Grand je crois que ñun Grand Yoff waaye li ñu war a njëkk waxtaan mooy lan mooy gestion municipale est-ce que c'est le maire tout simplement moo war a def wala c'est le conseil municipal dans son entièreté wala c'est le et le conseil municipal et les populations parce que dañu ne c'est une gestion concertée c'est une gestion de proximité mais bonne proximité c'est par rapport à quoi ama Grand Yoff boo seetee Grand Yoff Grand Yoff am na ku ne fii li fi nekk ci doomu Grand Yoff yoo xam ne ngay dem bitim réew taseeg ñoom ci yenn ay conférence yu mag ngay xam ne Grand Yoff lañ dëkk da ngay yéemu sax te bu ñu la rombee ils sont dans l'anonymat mais ces gens-là qui ne sont pas intéressés par la gestion du pouvoir qui ne sont pas intéressés par la politique waaye ñooñu doo leen jox sax doo leen laaj sax xalaat ñooñu doo leen def nooy nu ñuy participer ci gestion bi mais loolu dafa am liggéey bu mu moo tax euh, man en dehors de la politique parce que moi je n'aime pas la politique politicienne man politique de développement laa xam moom laa mos a def moom laa xam moo tax jafeñ na nga def lu tour du Sénégal même parlement africain bee ma nekkoon nga dégg ñu ne Abdoulaye Ndiaye jóg na wax kàddu bu safaanoog lu yar parce que moi je dis que la personne du loolu moo am solo mais li personne bi di véhiculer moo am solo donc c'est ça qui est important donc je crois que nañu dëgg bal bi xaar beeg ñu nekk jug concertation dialogue national bi xool euh, li gars yi décidé bu nekkee ne suffrage direct la bu boobaa ku mu neex nga nodd day bu mais ne su nekkee ne indirect la que li ñu doon def la ñuy defaat dafay laaj bu boobaa ñu toogaat waxtaan et ñu xam ne contrairement à ce que beaucoup de gens pensent gis nga élections locales yi ñu jëm elles seront déterminantes pour la suite de la gestion du mandat du président de la République parce que imaginez ñaanu ma ko yàlla yàlla bu mu am mais si on perd Dakar on per les grande villes day métti ci président pour mu chere te bu boobaa élection élection législative yi ñëw en deux mille vingt deux dafay métti pour ñu gagné ko donc. et loolu mooy suma problème au niveau de mon parti c'est-à-dire qu'aujourd'hui les autorités du parti dès à présent waroon nañu mu war a inviter les communes à réfléchir par rapport à plusieurs schémas et de faire des propositions yi ñuy yóbbu au niveau central par exemple ñu ngi dem vers des locales qu'est-ce que vous préconisez mais ñi ñu joxe seen xalaat mais dañuy toog foofu ba mu des deux mois ñu commencé ñu exiger ay circulaire di ñu imposer fekk ñeneen ñi parce que ñeneen ñi ñu wax ko ñu wax ko ñu wax ko ñu ñàkk ko wax mais commencé nañ ci liggéey déjà et attendons-nous à ce que ces gens-là dem vers vers vers un grand groupe vers vers l'union sacrée mais imaginez que sous toutes les forces de l'opposition se réunissent et, et, et, et, mettre en place une seule par rapport à, à nous Benno Bokk Yaakaar c'est que cela va donner li ñu daloon 2014 ñu waratuñu dal nous devons tirer les enseignements de cette échec boo xam ne ñu ñoo ko teg sunu bopp donc moi je crois que l'heure est venue que d'abord ñu yenente jàmm mais mais loolu gisoo loolu war président war na ci àddu war na ci en tant que. mais bien sur moi je considère que sax président dafa recevoir grave man dama jàpp ne dafa recevoir grave parce que man dama gëm man li ma gëm sama gëm-gëm la de que président souvent dañ koy jox ay information yoo xam ne baaxul sur grave parce que ñu ko doon jox les bonnes informations am na yu bëri fii muy am du fi am mais. yàlla ñu yàlla baal mais lobby bi aussi dafa c'est flagrant dafa flagrant ñun yu bëri dañ koy xam mais dañuy noppi quoi dañuy dañu gëm yàlla mais dara ñu xam nañ ci yu bëri xam nañ yu bëri mais li am solo mooy ñun président lañ bëgg moom la ñu gëm kooku yàlla ko def ci ñun te yi ñu booleeg président dafa bëri boobu du sax à part grave li ñu booleeg moom dafa bëri man personnellement mais donc man xalaat mosuma xalaat qu'un jour dinaa def lu wor moo li mu bëgg ñaanu ma ko yàlla bu boobaa je préfère laisser la politique tout bonnement xam nga mais fii mooy loolu dem nañ fi bi ay moment donné ñu may ne je travaille pour xalifa Sall ci suuf xam nga mais bi ma ko déggee ay ree la ma defoon mais donc même même même ñi ànd ak Khalifa sax affaire ay ree la leen def donc man parce que man am naa fula ak fayda boo xam ne bés ma décidé woon pour def loolu damay ne fang ñëpp gis ma donc ce qui est important c'est que nañu jëggalante nañu baalante nañu muñalante te nañu xam ni nit ku nekk mënoo wër lekk sa wërsëg morom te président jublu ci jeunes yi surtout les jeunes na jublu ci ñoom ñun xoolal au coude au port ailleurs il des gosses des jeunes qui sont là diplômés même les ceux qui ne sont pas euh, qui n'ont pas de mais ces gens il faut penser à c'est vrai qu'il faut penser au Sénégal faut il faut penser Sénégal mais nag aussi aussi ki lay ki lay nekkal ci naaj aussi da nga koy nekk nga nekkal ko ci ker gi je crois que c'est ça euh, je je ne suis pas égoïste parce que ce sont tous les jeunes sénégalais qui sont intéressés par l'emploi mais quand même daf ciy baax aussi ñu ñu ñu parce que am na ay mécanismes yu bëri yoo xam ne moom ñu ñoom mën utiliser pour aider quand même nos jeunes là à s'insérer dans le circuit productif. loolu yóbbante monsieur le président euh, l'honorable député nee na nga jàppale ndaw Grand Yoff jàppale leen gëstu leen ah, ak famille surtout famille ah ok surtout famille dernière question tey su fekkoon am nga looy revendiquer loo xamante ne nii ci quinquennat bi lan nga ci laaj tey boo amoon poste boo xamante ne yaakaar nga ni lii daal mën nga ko doxal tey nga war ko laaj cër boo xam ne ni war nga ko laaj lan lay doon tey euh, directeur la wala. ministre wala responsable yaay xam. ñun nag yàlla def ñu defal ñu am les pieds sur terre xam comment un état fonctionne en tout cas ñun fépp fu ñu mës a jaar moo xam ci cadre professionnel la moo xam à l'Assemblée nationale la moo xam dans les ONG la moo xam au Parlement africain la yàlla defal nañ ci ay ndam ba on a réussi notre mission te loolu kenn mënu koo weddi li ma ci ci télé laay waxe kenn mënu weddi loolu président bu yaakaare ne je peux être utile quelque part je serai utile là-bas incha allah di ko ñaanal également sama yeneen mbokk Grand Yoff waaye aussi yàlla dafa leen loolu waaw. merci ñu ngi lay féliciter di la remercier ci sa disponibilité ci li ñu recevoir merci monsieur Datour jërëjëf.